Euh, l'exécutif euh, pardon le par les l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel daal di wax ni crise institutionnelle am na donc moi je je j'abroge le décret qui avait convoqué le le corps électoral Abdou xam nga ne soo xoolee le déroulement des des événements mhm. yow gën nga dégg wax wax corruption de déggatoo ko c'est quand même bien de rappeler pour dire à quel point peut-être peuvent se jouer de mais xam nga ñoom mais xam nga déggatoo ko oui ñoom ci yi kañ nga ci mës a dégg koo ci déggati fi ñu toll nii muy wax wax corruption da nga ko déggati. Mm, mm. da nga ko déggati. démb seetaan émission Pam Ngagne njaay bi mu def euh, ak euh, Tafsir Thiaye. Mm-hmm. je crois que c' est le porte par xam nga Tafsir c' est pas n'importe qui. lu mu wax bi wax Pam Pam ngañ mu ne ko mais mës nga dégg fii ñu ne conseil constitutionnel dañ leen tuumaal ger mu ne ko déet mu ne ko mais mu ne ko man mii nag di wax. aw ma ci benn preuve ne dañ leen a dañ leen dañ leen a ger. mu ne ko Pape ah Ngagne ne ko aw ah ma mu ne ko waaw aw ma ci benn preuve te moom ci biir PDS la nekk nee na amu ci benn preuve waaw kan moo ci am preuve fi nekk nii tey wëral biir PDS kenn ñi ma wuccee taxaw ne maa yore preuve yi kenn xam nga du ñu def plainte bi dañu plainte contre X. Mhm. mooy xamuñu kan la. mais c'est quand même grave kon. man j'aurais bien aimé que par exemple président groupe parlementaire bi wala keneen ci biir PDS daal di taxaw mu ne yéen juges yi. nangam ak nangam ak nangam lañ leen jox xam nga ci biir meeting yi daal seen biir rassemblement yi daal nañ ko hmm. mais fi nekk kenn ñi mëntu jël endossé la responsabilité taxaw daal ne yéen waa conseil conseil yow Cheikh Ndiaye yow Cheikh Diane Coulibaly hmm. dañ leen na jox 2 milliards 3 milliards kenn ñimee ko ci man je l'ai défi kenn ñimewu ko ci kenn parce que boo xool comme que léegi juge bi jël na jël na mbir mi en charge soo ko waxee ñun la yow lañ soxloon kaay nga gindi mais sagam tam tafsir moo ci xamul dara hmm. moom mi nekk biir PDS waa kan moo ci xam dara xam nga loola dañ ko bañ koy wax ñoom gëmuñu ko sax Mamadou Lamine Diallo mi bokk ci ñoom dem na seen TV ñooñu ko mën leen waa yoru ñu dara man toog naa mën leen damitu preuve yoru leen ko. mais comment le président de la République a pu être entraîné loolu daf ko neex rek xam nga lii lépp man wax naa leen ne ay stratégie yu ñu teg la seen i plan yu ñu teg la rek c'est en réalité le président ne veut pas aller à l'élection présidentielle loolu mooy dëgg gis affaire PDS mhm. n'a été qu'un prétexte mais report élection yi. bañ ko waxee yàgg na. cest à du lu bees de du lu bees man mois de novembre quelqu'un m'a di mu ne ma. jàppal ne élection yi dinañ ko reporter man na ko leex ni mu ne ma dinañ ko reporter. wax nañ ma ko. moom laa la wax moom laa la wax gis non xam nga fii ñun gens yi yëpp la ñuy xam. <laughs> donc xam nga ne yow loolu ba nga ko déggee. Mm-hmm. affaire ga da nga ko dégg mais nag il faut il lu nekk nga wutul ko prétexte. Mm-hmm. bañ ñëwee ba xam ne xool ñun lu ñu luñ koy ñu koy reporté ñu xam ne crise amu fi parce que on a tellement parlé de chaos chaos chaos chaos finalement le chaos n'est pas venu mm. mais ñu ne finalement il faut créer un pseudo pseudo chaos une pseudo crise daal koy jaarale ci loolu mais xam nga ñoo ko wax mm-hmm. tey kenn ñi mu cee taxaw daal ne juge yi yéen lii lañ jox kenn ñi mu ko ci moo tax ñu def plainte contre X parce que xamuñu kan la ci lu toll ñu biir PDS ils n'ont qu'à assumer mm-hmm. finalement ñoom ils ont ils y leur compte. Mhm. xam mooy lan presse prétexte loolu ñu war a réintégrer seen candidat et en même temps aussi reporter élection présidentielle parce que nag wax ji wax ji mooy président moom élection yi wax dëgg yàlla dara parce que xam nga tax. Mhm. xam na ne bu demee élection son candidat perd. c'est tout oui mais et pourtant pourtant hier en conseil des ministres moom njiitu réew mi Macky xam xamle na ni euh, décision bi nga xam ne jël na ko pour quitter euh, le le 2 avril. Hmm. c'est c'est une décision ferme boo xam ne voilà. mais mais loolu doyul wala xam nga xam man <laughs> oui à force de le répéter. Mhm. finalement je me dis qu'il va parce que en 2016 dañuy fox ba tàyyi. je vais réduire mon mandat je vais réduire moom mandat je vais réduire mon mandat de cinq ans nga dem ba ca cappaandaw ga. Mhm. xoolal mu ne mbir mi mënul am. nañ laaj conseil constitutionnel conseil constitutionnel dëggal daal ne kenn mënul yokk kenn mënul wàññi heureusement que conseil constitutionnel jël décision boobu. Mm-hmm. parce que loolu moo ñuy sauver ci situation bi ñu nekk tey. Mm-hmm. mu taxoon daan ne deuxième tour de troisième mandat dootu fi amati. Mm-hmm. xam nga loolu dañ ko doon xeex 2011 2012. fu mu taxaw wax ko fu mu taxaw wax ko fu mu taxaw wax ko ba avant élection 2019 yi fu mu taxaw wax ko julli gi ñaar la 7 ak 5. 7 raka donc fa yem. ñu romb 2019 nga commencé naan du ma wax déet du ma wax waaw mbir commencé na am. Sénégal nekk maintenant dans une ambivalence nii oui nii non nii oui nii non nii oui nii dëkk bi kenn xamu ci lu ñu nekk. Mhm. ba finalement xam ne mbir mi mën na taal réew mi mu ne je renonce à mon troisième mandat. je mhm. au troisième mandat. ba wax ba pare nag ne même su fekkee ne loi may na ma ko alors que loi may ko ko. mais may ko ko mënul def troisième mandat c'est pas possible la loi ne lui permet pas du tout foofu jaru mu fay xam man man nga ne. Mhm. affaire mandat jeex na fi man je à ça waruñu sax egsi ci loolu donc tey su fekkente ne dafay répéter ak insistance mais jaru ko ñun constitution bi wax nañu ne moom la deux day dem constitution wax nañu ko dañ bàyyi rek yow doo xam naa date bi may dem jarul fu ma toog ne date bi dana damay dem. parce que à force de le répéter mooy finalement du ngeen ma téye. danaa dem de téye leen ma man de dinaa dem <laughs> wala su ma demee ko fi ne. <laughs> mooy waral tàggatoo yu bëri waaw moi ou bien je fais un malheur mooy loolu. jaru ko jarul tàggatoo. Hmm. mais xam nañ ne comme le comme ni ko loi bi waxee que le deux hmm. mandaam day jeex sa à dire la fin de la mission présidentielle. d'accord le conseil constitutionnel daal dina ah, ko rappeler oui. léegi nag problème bi bu fi nar a mooy la crise parce que actuellement on n'est plus pour. mën a organise élection foofu laa doon bëgg a ñëw parce que euh, ci dialogue bi euh, proposé nañ benn date buy le 2 juin moom njiitu réew mi rappelé na ne effectivement proposé nañ ma le 2 juin naa ko peut-être soumettre le le conseil constitutionnel yow jàpp nga ne Serigne Saliou que conseil constitutionnel je sais pas risque laa ko mën a jàppee quoi que dina dédire boppam. non il n'ose pas <laughs> conseil conseil mun wax loolu moom la mu jàpp mooy kon nul n'est au-dessus de la loi. mënu ko bañal démb bañalal ko tey añal ko euh, comment dire accepté ko tey c'est pas possible moo ko waxoon fii la 15 février bii su sorul dara considérant 14 ci décision bi ne ko 2 avril ci la sa mandat di jeex kenn mënu ko yokk conseil constitutionnel quest que quelle que soit la crise dans ce pays ak lu fi mën a am ak jaxasoo bu fi mën a am moom dafay tënku ci yoon rek li muy constaté mooy ah, le deux mooy mënatoo fee nekk quel que soit quel que soit alpha yow moom la deux xaw ma keneen ku fi mën a nekk mais yow le deux monsieur le président le deux yow ci ngay fëgal kenn amul maxama yokkal la benn minute kenn mënu ko kenn mënu ko du ña nga fa dajale du kenn amul sax institution tey bu mën a taxaw daal ne même conseil constitutionnel ci boppam mënul mhm. ne président ñun yokkal nañ la parce que constitution moo nekk ci au delà de tout le monde donc conseil constitutionnel ñoom aussi en même temps c' est des de la constitution ñoom c' est les gardiens juridictionnels de la constitution. le président c' est le gardien non le président de la république. oui le président c' est le gardien non juridictionnel. mais uh-huh. ñee c' est les sont les gardiens de la constitution donc ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk da sàmm li constitution bi wax. Uh-huh. donc fekkee ne ñoom ils ont le dernier mot président bu fa yóbboo dañu ko président yow moom mënoo dem au delà du te élection yi ñi nga xam ne acteurs ñoo ko seex ñoom ñoo ko mën a décider nag.

si guddo googu la ñuy dugal mais temps mieux su fekkente ne c'est pour éviter que le Sénégal sombre dans la crise d'accord parce que nag fi ñu toll nii mhm. ah man de nee naa leen ñañ waroon dialogal lañ dialogal mhm. les vrais acteurs su leen woowoon wax leen ñoom dinañ dialoguer dinañ wax mais xamalu bon mooy dama bëgg a dialoguer ak ñi mais dama bëgg aussi dialoguer ñi parce que vouloir coûte que coûte ne da nga bëgg a am ay kandaa yooyu intégré ay réexaminer ay dossier mooy lan comment on ré réexamine des dossiers yow nga dem examiner ñu éliminer la ajourné la ne la yow bokkoo ci ñi nga xam ne dem nañ deuxième tour yow bokkoo ci ñi nga xam ne dañoo war a dem ci beneen phase bi nga taxaw daal ne huit daal ne déet man daal samay dossier nañ ko xoolaat samay dossier nañ ko nañ ko ubbiwaat xoolaat alors que tey nañ ne ku ñu xas ba éliminer ci say dossier fi nekk say dossier kenn mënu ko ubbiwaat nga ne déedéet man sama dossier nañ ko indiwaat waaw soo indee sa dossier ñu indiwaat dossier keneen indiwaat dossier keneen indiwaat dossier keneen su ma yàggee sax ñu ne waaw Sonko bi nga xam ne génn na barki dem bu fekkee ne diggante boobu génne nañ ko te j'espère que dañ ko génne su boobaa ñu ne ah même Sonko sax fi nekk mën na postuler parce que en réalité su fekkee ne ci loolu la ñuy basé wu dañ il se trompe Sonko est légaliste jusqu'au bout mm-hmm. gis nga seen combine yii Ousmane Sonko dis mosu dugg parce que Sonko n'a pas une fixation sur l'élection présidentielle c'est-à-dire vaille que vaille ça doit être moi déedéet mm-hmm. boo déggee waa Pastef ni ñuy raisonner ñoom ils ont un projet et ce projet là Sonko nee na mën naa ko jiite keneen mën na koy rey keneen mën na koy rey étant donné nekk arbitrairement il a été éliminé de la course présidentielle ñoom jàpp nañ ne am nañ candidat boo xam ne mën na jël projet bi te candidat boobu ils désigné te jusqu'à preuve du contraire kooku mooy seen candidat donc amul luñ fi mën a wax pour mën a jaaree ci Ousmane Sonko man valider candidature Karim Wade ak keneen ñoo ci yem dama ne élection bii nii du Karim du Sonko du Decroix du Gadio du Cheikh Bara Dolly du ci ñooñu du ci kenn cest à kenn mënatu cee bokk te gis nga attitude de sagesse xam mooy lan hmm. ce que Bougane Gueye Dany a fait ce que Aminata Touré a fait hmm. ce que Abdourahmane Diouf a fait ce que quelqu'un d'autre dans ce même groupe aussi a fait ce que Mary Teuw Niane a fait hmm. ñoom jàpp nañ ne ni leen éliminer c'est injuste c'est arbitraire ils l'ont démontré mais nag comme que ñoom jàpp nañ ne dañu war a jiite réew mi un jour nañu tënku ci li nga xam ne moom la charte réew mi wax parce que bëgguñu ñu xëy un jour Sénégal yi dénk leen réew mi ñu am ay jafe-jafe ci ak institution yi parce que suba dañu ne yéen kat ba ngeen fi nekkee yéen yéen a doon jalgate donc la ngeen doon ñu ñun aussi danañ jalgate de la même façon moo tax il ne faut jamais créer un précédent parce que daf toujours dafa lay topp et daf lay dab. moo tax ñooñu au moins. Mhm. ils ont été sages en s'associant ba ba bokkuñu ci li nga xamante ne moom moo xew jam ñaa jox ña jaar nag da fa demoon à part le PDS. à part le PDS de kan nga ci gis fii sur le plan politique mu représenté fi dara xeeb ma leen de. réalité xeeb ma leen de. c' est des sommités intellectuelles bu fekkente ne politique mën na politique moom mën nañ ko mais dama ne au plan électoral. ñoom lan la ñu peser peser wuñu dara. peser wuñu dara waxuma ko parce que dama leen xeeb mais c' est la triste réalité peser dara donc ñooñu tey bu ñu sonal nit ñi. le Sénégal a autre chose à faire quand même ñun dañu bëgg dem élection ba pare jàllati leneen parce que sa réew mi dafa war a passé fi mu nekk. mais ñoom mënuñu tey réew mi tënk ko rek ci seen affaire yu tapale yooyu cest dire mënul nekk. il faut que les Sénégalais passent à autre chose on n'a qu'à organiser l'élection présidentielle ki ñuy fal ñu fal ko Sénégalais ki ñu bëgg. Mhm. ñu dem ñu fal ko mu jeex. et ça c'est le choix souverain du peuple ñu jàll ci leneen mais bu ñu kenn re euh, comment delloo ci ginnaaw. ci ay dialogue yoo xamante ni ça ne concerne que ceux que l'on crée de toutes pièces hmm. mais ça ne concerne pas ñi nga xamante ne tey ce sont les démocrates de ce pays d'accord ah. alors euh, balaa ñuy ñëw si euh, la loi d'amnistie ak euh, li ko wër lépp ci fin de mandat bu président de la république hmm. dégg nañu lors du dialogue un avocat chef de parti maître El Hadj wax na njiitu réew mi faw mu toog après le 2 avril loo xam ne c'est contraire à la constitution mais également ñoom niñ koy argumenté euh, ñu ngi ñu ngi euh, def référence à l'article 36 de la constitution alinéa 2 euh, boobu est-ce que <laughs> mën nañ ko mën na nekk loo xam ne mën na justifier la présence du président de la République au-delà de deux du deux avril